yéen xam-xam ñoor ak sunu jotaayu xalima bu ñaaw di dalal boroom xam-xam yi fii ci sunugal 24 point net kon nag tey seen gana ngoog mbokk yi seen gana ngoog seen gan mbokk yi yaakaar naa tey mu nekk sunu jotaay bu euh, njëkk di sëriñ euh, Mara Seck mbokk yi sëriñ Mara Seck nag mbokk ni ma ko waxee daanaka mën nañu ne ay jamono ñu ngi waroon seq li nga xam ne moo di jotaay xalima bu ñaaw waaye nag li ko waral rek mooy ñàkk toogam ci biir dëkk bi ci biir réew mi rawatina ci biir réew mi euh, sëriñ Mara Seck balaa ñuy sori rek di bég lool ci jotaay bi wax salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Mountakha ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziara di ñaan ci yàlla nuyoo bi ak ziara bi tam mu fekkale ci jàmm di ñaan tamit ñëpp ñu ñuy bàyyi xel à travers euh, Sunugal 24 yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ziara tamit ci weer wu màgg wi. di ñaan ci yàlla yàlla nañu yàlla nangu suñu koor te lu ñu ci jaamu yàlla yàlla na ko suñu borom nangu bi barakati Seydina Muhammad ñu ngi leen di ziar bu baax nag sëñ Muntaga di rafetlu jataay bi di leen jégglu nag bu baax a baax a baax ci jafe jot gi waaye ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax macha allah. <laughs> jërëjëf euh, sëriñ Mara ma ma intellectuel ndax euh, boo ko gisee nii xëy na amaana boo saafoonte moom ba ci ngay xam macha allah li ne ci moom. Euh, sëriñ Mara Seck euh, euh, ñu fekk si waat ko tey fii ci diwaanu si Cap Foire sëriñ Mara li may jaaxal mooy ñàkk toog bi hmm. sa toog ci biir réew mi bëriwul sëriñ Mara Seck tey mu ngi Allemagne mu ngi bërëb sàngam mu ngi bërëb sàngam lan nga fay yëngu ci bëri bëri wallaay ndeysaan sëñ Muntaga macha allah ci question boobu leeral ko dafay am solo ndax jamono bu ci nekk rek bu ñu nit ñi soxla yoon la tamit ñu bàyyi suñu yitte yëpp jóg dem ci ñoom jëflanteeg ñoom te yàlla rek tax loolu mooy waral buuse bi ndax jamono bu ci ne ñu déggante waaye jataay bi xañ na tey la ko suñu borom dogal yàlla doon tamit euh, jataay bi gën yàlla na doon jataayu teraanga waaye daal képp koo xam ne daal suñu loxo yegg na fa wala suñu tànk incha allahu rabbi suñu ko manee di ñu fa dem ci kàttanu suñu borom waaw loolu rek mooy waral tukki yi macha allah sëriñ Mara Seck waaw macha allah sëriñ Mara Seck nit la di donga bu xeebu ñaari góor jur ko muy doomu soxna bokk tamit ci tarixa cheikh maamam doonoon it ku ñu ràññee ci tarixa cheikh bi doon mu xaddam ci tarixa cheikh bi yàlla dénk ñu it ay taalibe donte ne ay ndaw waaye daal Mara Seck daal mi ngi ni jëmm bu xeebu la <laughs> waaw jëmm jëmm bu xeebu la daal. Euh, euh, ndax da koy def listixaar ndax ñu bëri tam euh, dañuy laaj ndax sëriñ dina listixaar. <laughs> waaw jërëjëf sëñ Mountaga man yàlla dogal na listixaar rek laay def. waaw man. gis nga sama ganu canadien yaakaar naa ne eh, am na loo ci xam. Mhm. man daanaka lu baax mënul yomb lu baax képp ku la koy yombala rek amaana man naa am daal doy na waar waaye lu baax moom mënul yomb man yàlla dogal na listixaar laay def man seetuma man xaar laay def lu mbooloo bari bari bari chaque jour ku ñëw boo bëggee ñu defal la listixaar dañ lay bind heure bu sa. tour excès dinañ la lis xaaral wala téléphone wax la sa aajo. waaw gën ko bëri trente. personnes laay jël par jour waaw. macha laay jël par jour waaw. kenn laay jël. par kenn par laay jël. waaw boo paree daanaka bëri na ci. waaw parce que mënoo bokk xar dafa am yoon am ay sart waaw du seet listixaar fa tabaarakallaa danga war a sell jàpp julli mhm. am yenn mbir yoo def dénk yàlla suñu borom laaj ko li la jaam di laaj mu wan la ci lu leer kon nag boo ko bëggee dénk fukki nit wala fanweeri nit ah, ah kon nag day daal di mujj doy waar waaw <laughs> day mujj doy waar waaw <laughs> euh, euh, ma ñëw nag tey li ma ne jotaay bi tey ñu dégg ñaari jaaro yu doy waar yi nga xam ni euh, yaakaar naa ni dafa mel ni moom yombul lañuy wax yombul parce que diisaay bi diis mhm. jaaro yi may dégg ñaari jaaro yi nga xamante ni euh, moom la Serigne Mara Seck yor jaaro la ak lan moo tax tamit yombul. <laughs> waaw fa tabaarakallahu jaaro yooyu sëñ Mountakha dafa doon jaar yoo xam ne yàlla xam na ne duma mu bëgg sax di ci leeral ndax ni mu mel dama naan jamono bu ci nekk rek yenn mbir yi képp ku ñu ci liggéeyal képp koo xam ne liggéeyal ñu ko na mu toll lan la ci jëf anam ban la wax boo gisul lañ la waxoon mm-hmm. na nga am fullaay ñëw jël la nga ca defoon. waaw. xanaa euh, dama koy garanti. waaw loolu dama koy garanti. moom jaara dama koy gar lépp ñaar la da ci am boo xamante nii moom taxu koo cher lool am na ci boo xamante ni néew na kilifa gooyu gis muy dox fi te jëf jëflante wut ak sëñ Mara. néew na laa wax. jamono yële dem naa fi nigeria waaw dem naa fi nigeria kii nga xamante ne ni kanadaa la dëkk yoxaan mi ànd mook soxnaam nekk fi bu may voyage des fois fi leen di bàyyi le treize di lundi la ñu war a delluwaat seen dëkk ñu ngi dëkk Ottawa foofu la nekk jamono bi nga xamante ne ni xamante nañu benn naar boole ñu bu dëkk Dubaay bi ñu waxtaanee tey bu yàlla dogalee boo ko jisee di nga gis jaaro bi waaw am na fu ñu ci jëflante ak ñoom te ñoom ñoo ko gën a bëgg léegi parce que xam nañ efficace bi mu efficace dafa am nag ay yenn sacrifice yu muy àndal waaye nag du doon lu ñuy leeral loolu moom waaw moom jaaro bi waaw du doon lu ñuy leeral waaw mm-hmm. waaw dafa xaw a doy waar nag ndax bi nga xamante ni nii ci xaalis rek lay dox boobu moo gën a seer boobu moo gën a jafe waaw boobu moom bi nga xam ne moom boobu moom nee naa la weer wi nga ko takkee balaa del si fu ñu déggee borom teraanga dañ la ci dégg waaw boobu nag moom <laughs> <laughs> waaw <laughs> eh, wallaay xam nga ndeysaan sëñ Mountakha xam eh, dëgg la ndeysaan dama ko fi wax eh, sama nijaay bi moom it muy borom xam-xam ma ne ko bala ngay tijj nit day fekk nga ko mënoo tëju di tijj kenn yàlla dogal na lu bépp borom teraanga di am donte na nag suñ jëmm ji ndaw na lool waaye lépp lu borom teraanga dem yàlla séddee nañu ko waaw bu fekkee ne fu baax ñi fa bu fekkee oto bu rafet ñi ngi koy daw fi ñu bëgg a dem ñu ngi fay dem kon sant yàlla bu baax <laughs> waaw sant yàlla mën gëw ma ngay ñaanal nit ñi ba pare ñi ngay ñaanal ñu yërëm la ñoom wala ñu tane la man gëw ma loolu mun euh, Mountaga mënul tëju ci bunt bi ba pare bëgg a tijjikee loolu mënul nekk c'est impossible loolu loolu mënul nekk loolu mënul nekk waaw <laughs> sëñ xanaa sëñ Mara Seck li may wax nii. Mhm. ba boo ko takkee balaa ñaata nga ngay joxe waaw dama ne boo ko takkee. weer wi nga ko takkee balaa del si maanaam si boo ko takkee at la douze mois bala muy mat six mois. waaw di nga gis résultat. ala kulli haal ala allah mbokk yi sëriñ Mara Seck di leen fàtt rek mbokk yi fii ci diwaanu Sicap Foire numéro téléphone baa ngi noonu 77 775 14 35. ñu daal di ñëw ci wàllu góor gu mënul boppam ci bëri nag ku ci nekk ak wàll bi nga koy liggéey mais mm. bu xam yow ña dafa wàcc lal muy góor nga xam dafa wàcc lal daanaka jafe-jafe la muy phénomène mondial mm. euh, kooku dégg naa tam dañ ci am ay saafara yu day wax waaw dëgg la fa tabaarakallaahu loolu sëñ Muntaga dafa dem ba lëmbee jamono waaw tol na ay temps ay mag ñoo ko doon ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko doon ñoo ko doon jàmbat waaw waaye léegi yàlla yàlla dogal na léegi ndaw ñi sax ñoom ñoo koy jàmbat en l'âge de trente ans trente cinq ans quarante ans léegi ñoom ñoo koy jàmbat léegi nag loolu su demee ba am jar na taxaw seetlu waaw xool ba xam lii lan la am ñoo xam ne foo bu bari moo leen ko jox am na ñoo xam ne tawat la am ñoo xam ñi dañ leen takk xale te xamuñu ko ñii leneen ak leneen leneen ak leneen lu mu ci mën di doon dañu koy xool am su ñoo xam ne euh, sunguf enragé wu leen seen xool attanu ko ñooñu nag faaw nga xam ko faaw nga xam ban ban ban mbir lañ war a jël su ko defee rek incha allahu rabbi yàlla mën na ci def tawféex ci kàttanu suñu borom. macha allah mais da euh, na calmant wàllu mm. eh, mm, dëgg la waaw calmant maanaam ñi koy def rek en général mooy ñi nga xam ne dañuy jël garabu tubaab. Ah, waaw ñi nga xam ne garabu tubaab boo ko jëlee efficace na di nga sentir sa bopp ci saase waaye su jeexee rek jeex na. waaw li gën mooy nga traité ko ba mu wér mu pare ak yow jeex ak yow su ko defee nga passé ko nekk ci leneen. ci kàttan suñu borom macha allah jërëjëf sëriñ Mara Seck yaakaar naa loolu euh, yoo xamante euh, nga xam nga xam parce mhm. ah, mhm. euh, que mën ngaa <laughs> dëgg la dëgg la la dëgg la ku mu gën waaw fa tabaarakallahu sëñ Muntaga li may wax rek jamono bu ci nekk su ma ko waxee ñu ci bari naa waaye sëñ bi di li mu wax jar na taxaw seetlu nee naa leen ñu ci bari nit ñi di ko def maanaam nan ma baal ci kàddu gi coŋo congo yi la comme yenn takk ndomba yi yenn kii kilifa day samp soo bëggee am foo yegg fu ñu dégg borom teraanga dégg la fa da ngay samp waaw mais takki ndomba mënul yóbbu fenn mais samp dama ne nit ki kilifa day samp ci cadre samp bi nag mooy nga defal ko mbir yi nga xamante ne ni ci gàttal fu mu romb ñu bëgg ko waaw ku ko gis sopp ko yéene ko alalam ba tey kenn du ko mën a daaneel waaw loolu mooy samp <laughs> parce que ubbeeku am na ñoo xam ne carrément xëy na tey bu ñu nee bi àtt nañ dëgg xam ne mën na nekk waaye ñu ci baree bari dañu dox ba xam ne nit xam nga xawaatim am na noo koy dugalee daf lay tëj au lieu que nga ubbeeku daf lay tëj tëj boobu nag su ko bu fekkee da nga dem ci sëriñ mu génneel la sarax am ñoo xam ne seen sarax waruñu rey ñu dem ci sëriñ mu génneel leen ñu rey am su ñoo xamante ne ni seen sarax warul doon lu weex rey la ñu dem ñu génnee leen leneen ak leneen kon loolu soo amee rek daanaka tëju boo amee te koo xamoo ko mën nga dem wër fo boole ay fukki sëriñ yu bokkul doo gis résultat te dama naan dem ba ne sëriñ laa sax defet la léegi ndax ni mu demee yàqu-yàqu yi dafa dafa dafa xaw a ñu naan nit ñi di ñëw naan ñu sëñ bi ñaanal ñu ci yàlla waaw incha allahu rabbi macha kaaraange bu ñu daaneel foofu ci côté boobu ñu ñëw tuuti ci wàllu kaaraange di ci waxtaan ndax man ñi ni nga ko waxee ni waxee sanku tamit man ñi moom néew ñu waroon xëy te amuñu laal te léegi moom ñu ci bare bare xëy na da nga daanaka yor allah mais tant que ni kat ni joon rek seen <laughs> dëgg la fa tabaarakallahu xam nga suñu boroom euh, boo ko bëggee ñaan mu buy neex da koy ñaan su méttee rek soo ko ñaanee mu wuyu la waaye buy neex nga fàtte ko ah su mettee nga ñaan ko rek ah fa tabarakallahu duma ne du ñëw de waaye balay ñëw man ngaa sonn <laughs> waaw fa tabarakallah macha allah c'est euh, que daanaka sax euh, mu ngi ñuy nuyuwaat bu baax di ziar euh, mbokki jullit yi di ziar soppe yi taalibe yi nekk à travers le monde fi ci mel ni Amérique euh, fi nga xamante ni Canada Belgique ba Suède Suisse ba France Italie euh, jàpp fépp daal Suède Suisse fépp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di la wax rek ne ah sëñ Mara moo ngi nii te it ku woo jotoo ma nga xam ne bu ma sañoon am yéene jot ñëpp waaye fa tabaarakallaahu jot gi moo ko mayewut ñu ngi leen nuyu bu baax yow sëñ Muntaga yow suñu soppe nga waaw ñu ngi nuyu di la ziyaara yal na li yàlla defal jàmm comme ni nga koy baaxee di wax rek yàlla defal la jaaba defal la maqbul defal la taysir defal la sahaadatu daaray nii

775 14 35 di ñaan rek allah buur subhanahu wa taala du lay sa fan loolu laa defal taw fexe tëjël na jaaxa defal la saxaar daal yéen ci bar barki yonent di jëf nañ fekk askan wi sa borom bi da la ci defal ndam euh, Mara mu mel ni bëgg nañ lool di nuyu sa mboolem gan yi nga xam ne ñu bàyyi ko ci diwaanu Canada sa taal bi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di nuyu mboolem équipe technique bu sunu gaal 24 point net ci wàllu éclairage bi caméra bi di kii bu baax a baax Cheikh Liba si liggéey bu am solo bi leen ci wàllu réalisation bi Serigne Aliou Top ci wàllu montage bi moo dóor waar l'infatigable seen jotaay xalima bu ñëw ngeen ci doon ànd ak seen mbokk taalib Mouhamadou Lamine Mountakha fii ci diwaat si Cap Foire yàlla bi borom jàmm teet ku mu jàmm nga daal di am jàmm yàlla yàlla sax borom bi doon la defal jàmm dina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu